بسم الله الرحمن الرحيم وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال inna almalaikata tadacu ajnahataha li taalibi alcilmi ridan bima yatlub fa qultu innahu qad xakka fi sadri almasxu ala alxuffayni bacda algaaiti walbawli wa kunta imra'an min asxaabi nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa ji'tu as'aluka hal samictahu yadkuru fi dalika shay'an qaala naam kaana ya'muruna idha kunna safran aw musafirina alla nanzi'a xifaafana thalathata ayaamin wa layaaliyahun illa min janabatin lakin min ghaitin wa bawlin wa nawmin fa qultu hal samictahu yadkuru fi lhawa shay'an qaala naam kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fa bayna nahnu indahu id naadaahu acraabiyun bi sawtin lahu jahwariyin yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa ajaabahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naxwan min sawtihi haa umu fa qultu lahu wayhak ughdud min sawtika fa innaka inda annabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa qad nuhiita an hada fa qaala wallahi laa aghdud wallahi wallahi laa aghdudu qaala al-a'raabiyu almaru yuxibu alqawma walamma yalxaq bihim qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam almaru maa man axaba yowma alqiyaama fama zaala yuxaddisuna xata dakara baaban min almagribi masiratu cardihi aw yasir aw yasiru alraakibu fi cardihi arbaciina aw sabciina caaman qaala sufyaanu axadu ruwaati qibala shaami xalaqahu allahu taala yowma xalaqa alsamawati wal arda maftuxan littawba laa yuxlaqu xatta tatluca alchamsu minhu rawahu tirmidiyu wa gayruhu wa qaala xadiisun xasanun saxiix Zir bin Xubaysh May Allah have mercy on him, reported, I went to Safwan bin Assal radiyallahu ta'ala anhu to, inqu to, inqu uh, to inquire about wiping with wet hands over light boots while performing wudu. He asked me, What brings you here, Zir? I answered, Search for knowledge. He said, Angels spread their wings for the seeker of knowledge out of joy for what he seeks. I told him, I have some doubts in my mind regarding wiping off wet hands over boots in the course of performing wudu after defecation or urinating. Now, since you are one of the companions of Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam I have come to ask you whether you heard any saying of the Prophet ﷺ concerning it. He replied in the affirmative and said, He ﷺ instructed us that during a journey we need not to take off We need now to take off our light boots for washing the feet up to three days and nights, except in case of major impurity after sexual intercourse. In other cases, such as sleeping, relieving oneself, or urinating, the wiping of wet hands over the light boots will suffice. I then questioned him, Did you hear him say anything about love and affection? He replied, We accompanied the Messenger of Allah وسلم, in a journey when a Bedouin, a Arabi, called out in a loud voice, O Muhammad. وسلم. The Messenger of Allah وسلم, replied, him in the same tone, Here I am. I asked to him, I said to him, I said to him, the Bedouin, Woe to you, lower your voice, for you are in the presence of Rasulullah wasallam, and you are forbidden to raise your voice. Lower your voice in His presence because you are allowed not to do so, meaning you are not allowed to raise your voice in the presence of Sayyidina Rasulullah. He said, By Allah, I will not lower my voice. And then addressing the Prophet, وسلم, he said, What about a person who loves people but has not found himself in their company? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam replied, On the day of resurrection, a person will be in the company of those whom he loves. The Messenger of Allah وسلم, then kept on talking to us, and in the course of his talk, he mentioned a gateway in the heaven, the width of which could be crossed by a rider in 40 or 70 years. Sufyan, one of the narrators of this tradition, said this gateway is in the direction of Sham, is in Asham. Allah, in the direction of Sham, Qibla Sham. Allah created it on the day He created the heavens and the earth. It is open for repentance and will not be shut until the sun rises from that direction, i.e., the west. At-Tirmidhi, uh, this hadith was narrated by Imam At-Tirmidhi and others. And Tirmidhi categorized it as Hasan and Sahih. Allah tabaraka wa ta'ala an yaqbalana wa yataqabbala minna. Ala sallallahu ala sayyidina Muhammadin. wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. Salaam wa rahmatullahi